ziyaare sunu sang bi sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd wér di itam suma sëriñ sëñ Abo Fàllilu ak waa kër sëñ Fàllu yëpp di leen ñaanal ñu yàgg fi lool ànd ak wér di ziare waa kër sëñ Touba yi fi nekk yëpp di ñaanal yàlla li nga xam ne lii moo fi am tey jii te sëñ Ibrahima mi woote ko ñu ñëw fii ci turu monsieur Gallo Ba di maire commune bu Mbacké ba pare di ministre de la fonction publique et de la transformation publique loolu muy cër yoo xam ni waa mbakk yi ñoo ko jox ci kóoluteg président de la république kon tey jii bu ñëwee fii sëñ Ibrahima monsieur le ministre daf ñu wax ni tey jii bu ngeen demee na ngeen ma àndal ak une forte délégation demal ma kër sëñ Ibrahima taxawal ma fa. seereel ma fa li nga xam ne lii maa moom seq nañ ko muy kóllëre bu mat koo xam ne gi am na ma su suma diggante ak moom loolu nag bi mu ko defee muy loo xam ne lu metti la nag loo xam lii dal na ko mooy lim ñàkk a ma ñëw fii tey jii ku nekk xam na ne yitte àdduna bi ak li nga xam ne lii dénk nañ ko ko mënu koo bàyyi ñëw di ñëwaat fii ñu ànd ak ab délégation boo xam ne bu am solo la nag parce que bis ki bis bi nag moo ko laaj te ñi ngi àndoon nag sëriñ Jili Jatara ànd ak sëriñ Saliou Jatara àndal ak sëriñ Jili Njaay mi nga xam ne mii mooy chargé de mission bi nga xam ne bii moom lañ ko nommé ànd ak Omar Seck moom itam ci délégation bi ci la bokk ngi ànd ak Saliou Jatara àndal ak ak Boy Naar ànd ak sëriñ sëñ Mamoun Mbakke ci délégation bi la bokk ànd ak itam ci délégation bi la bokk ànd aussi madame kan kooku ci délégation bi la bokk defe naa ñooñu ak bàcc njaay itam ci la bokk loolu nag dafay won ne ni fonk bi fonk sëriñ Ibrahima ci bis bi nga xam ne bii yàgg na koo def mu ni bu ngeen demee ngeen ànd ak délégation bi ngeen jukkal ma ko foofu di kontaan trop ci yow te xam na ni yow nitu lislaam nga nisu xaside nga nisu lislaam bu dëgg dëgg dëgg dëgg te fàttewul itam ñaan yi nga xam ni doon nga ko defal ba yàlla suñ borom indil ko lii moom ay ndomba tànk yi nga xam ni moom la am mu ngi la ci sant bu baax mu ni nag bis bi bisam la lépp lum ci def xeeb na ko lépp loo xam fii wax nañ ko fi ñaan ko fi itam mu ni moom moo ci jiitu ñaanal na la lii nga xam li moo nekk fi te mu nekk ci dëkk bi nekk fi responsable di xam ni dëkk bii dañ ko war a defar te ci ñi ko war a defar ci nga bokk muy leen di ñaan ak ñi fi nekk yëpp di leen wax ni fi mu toll mi ngi seen ginnaaw parce que lu mu am waa Mbàkke ñoo ko jox kon tey jii saa bu ñëwee fii ñu ànd ak délégation bi mu nii daal mu ngi ñaan lépp loo xam ne ñaan nañ ko fii ñu ñaanal ko ci parce que tey jii li nga ko jox itam ak kii ko jox muy président la république ngeen ñaanal ko liggéey bi nga sumb na ko muy loo xam ne lii muy simb liggéey bu mag mu mën koo àggale ci jàmm mi ngi sant itam li nga xam ne lii am na fi tey jii mooy ñin ko tuddee waa kër sëñ Demba Ramata sëñ Demba euh, euh, kii Mbacké Ramata tey jii muy loo xam ne lii ñun xam nañ ni fonk nga lool bis bi ñu ànd ci ak ñeneen ñi nga xam tudde nañ ko ñu bokk foofu nag muy sëñ Njaga Jeng kooku vraiment dëgg-dëgg di suñ coloré di sunu kilifa ak sëñ euh, ab Mbaye euh, sëñ Mbaye Jeng ñooñu dañuy sunu waajur ñu kontaan ci lool nag parce que tey jii ñi fi nekk ñi nga xam ne ay doomam ak i sëtam defe naa bu ma ci limee fàllu Dieng mii toog ak sëñ Serigne Dieng ak Mamour Dieng ñi nga xam ne ñoo bokk lépp dañ ci gën a kontaan nag ñu itam muy loo xam li taxawaay boobu ak ni ko def ñi ngi ñaan yàlla nga def ko ay déwén yu bëree bëri bëri bëri parce que tey jii xëñ na euh, mbooloo mi ñëw nañ mais ku fi ñëwul rek xamal ni am na lu tax wante ñëpp bëgg a ñëw surtout moom mi nga xam ni tey jii bis bi waroon na ko fi fekk mu ñëw saafoonte yow ànd ak yow ci bis bi jàppale la te lii nga xam ni def na ko fi itam da koo xeeb lool lool lool te xam na ni fi mu toll nii ñaan ya nga ko doon defal yëpp gis na ko kon mi ngi lay ñaan yow ak sa ñi nga xam ni mooy sa njaboot li nga xam ni sumb na ko ñu yàgg koo fekkee yàgg ci am ak ndam te tey jii waa Mbàkke yëpp am ci ndam itam muy wax itam ni. dëkk bi danga koo jox te dara fi ñu toll ñoru ko muy dëkk bi jëm kanam lii nga xam sum na ko tey jii wax dëgg yàlla euh, yàlla jox na ko ko yàlla jox na ko ak ndomba tànk mu ngi ñaan yàlla li nga xam ni yéene na ko waa Mbàkke yéene na ko waa koñ bi yeneen na ko sëriñ si ak waa kër sañ Tuubaa yi fi nekk suñ borom may ko kàttan ba li nga xam ne lii yan bii yan nan ko ko mu oyof lool ba mën a àggale ko ci jàmm te ñun ñëpp ñu fekke ko defe naa loolu mooy li nga xam ne lii waxoon na ma pour ñu wax ko ko xëy na li mu bëgg a wax yëpp xëy na bu taxawoon dana ëpp lii wante xalaat na ni daal sa diggante ak moom vraiment kontaan na ci trop trop trop trop te xalaat na ni itam fi toll nii li ma wóor mooy day gën a yokk wante du wàññeeku. ñu nuyu encore honorable député euh, ci suma jarbaat bi nga xam ne mii mi ngi toog nii. c'est vraiment xalaat naa ni tey jii itam am na lu mu fi def wante tey jii itam dañ jàppale rek ñëpp ñu nekk ànd benn defar Mbàkke wax dëgg yàlla Mbàkke moo ñu ñor te liggéeyal sëñ bi moo ko ñor itam te kon ñun ñëpp fi ñu toll liggéeyal sëñ bi moo ñu nañ leen ñaanal ñun ñëpp ñu ànd nekk benn vraiment sëñ Abdoulaye ñu ngi lay ziar bu baax honorable di ziare képp koo xam ne kii nekk nga fi di leen sant leen gërëm wasalaam. ndax bis bi ñu nga ko tuddee man soo ma tàggoon danga koy def ñaar ndax Baye Ndiaga taalu bi sëñ Mbaye Dieng la woon man Baye Ndiaga Dieng moo ma meññ waaye su ko mbay su ko sëñ Mbaye masaan woowu bu lay romb du sol daal du sol mbaxana ndax ñu dañu nekkoon ay pour tànk sëñ Mbaye Dieng day yónnee yónnee la baraade bi nga ñëw mu yónnee la kaas yi nga ñëw boobu mujj bu wootee di yónnee dañu koy bu ne njaga bu la sama baay di romb du sol yi daal du sol mbaxana mu ne ku ma ci woo boo diibee rek moo woo sa baay moo woo moo woo sa baay kon moom sëriñ la ko defoon di tax mu wax wax mu def sëriñ tim moo ko won sëñ Fallou jàmbaar bi lu nga xam ne kenn du moom ndax man nag bu may wax ci moom laay wax ci moom laay yem ndax daanaka su ma ko mos a def ko si bëriwul rangab sëriñ li ma ko def bëriwul ndax sëñ Fallou mën ci laa jeex tàkk fi ngeen toog moo naa fi di wax ci moom loo xam ne kenn du ko dindi ndax loo xam ne bàyyi dir sa baax moo la ko nettali wala sëñ Modou Afis nettali ko wala moo Ndiaye ten del nettali ko wala bàyyi Thior lay nettali la ko wala bàyyi Amdi Lam nettali la ko ñooñu ñoo nekkoon liir naa Serigne Fallou di la wax ñoo xam ne kenn du ko ñu ma àndal nag man xëy na peut dama cee gën a miin ay wax moo tax ndox ma ko mais suñu mag nële Habib Dieng ma nga jóge ci ginnaaw cees démb bi ñuy joxe giléem gi moom moo ñëwoon indi Habib ñu ngi lay sant dina gërëm Mamour mooy suñu mag mais suñu waajur muy sëñ Mbaye Dieng lim bàyyi ay jigéen ñoo ci des te ñooñu seen yaay seen waajur dañ doon bind ay xasida di tari alxuraan muy yaa May Dieng ak yaa seeni doom ñoo fi ñëw tey Ami Dieng bi jógee Taset ak Maguette Dieng ñu ngi fi toog waa kër yaa Ngone su ma tëddee Serigne Dieng tudd naa ñëpp waa kër yaa Gaas Malick moo fi yenn waaye ñoom ay mag ñoo xam ne ay jigéen lañ muy Seynabou Dieng ak Ndeye ñu ngi nekkoon ay yaay ci ñun ndax ñu Ndeye bi nee ba xami ba xami lañ xam ne ak moom bokkuñu ak moom yaay dafa ñu daan boot lu nekk defal nañu ko donc Ndeye Diagne ak njabootam ñu ngi fi bu Dieng ak njabootam ñu ngi fi seen njaboot yi donk nekk suñuy jabaat di sëtti góor ñi am ci bis bi Pastef lool kon mbokk yëpp ñu ngeen sant di leen gërëm léegi de sëñ Ibrahima day sagu koñ bi ndax lii dañ ko daan jëngaat ñun bi ñu nekk xale mag ñi buñ daan jàng sëñ jëmooy la ñu wooyee buñ jàngee ba pare ay lampe korma lañu daan pomp dem di siyaare ji léegi nit ñi di ko soxla di ko jël si ñun nga séddale ñu ko ñu ngi lay sant di la gërëm am na foo xam ne sama diggante ak yow la du ma ko leeral fii yàlla na yàlla sàmm te taxaw la. bés bi aussi nekk bisu kóllëre moraan mi fi wàcce léegi bi mu bi mu ñàkk waajuram bu jigéen. man ma am problème ñu ànd Dakar di ko lijjanti bi ñu egg Dakar lañ ko woon na ko sa waajur noppal na mu dëpp moo daan jërëjëf et merci beaucoup encore sëriñ Abdou ndaw mi toog xam na xam naa tey ji xam naa ne am naa kersa ndax bis bi su ko yëgoon fee lay toog ci ñu ñee ndax soxna may ak bàyyi njaga am na fuñ jaar may daaru ma nga ne nekk suñu kër monsieur le maire honorable député jërëjëf kon léegi gi des aussi mooy maanaam ñu tuddee bàyyi njaga ak ñu tuddee sëñ bàyyi njaga bis bi tey ñooñu ci gën a taxaw liñ ci def nag defuñu ko pour diir kenn defuñu ko tim pour wane dara maanaam mbégte muñ ci wane ak de fet di kóllëre ndax Ibrahima dag ñoom may loo xam ne tey jafe woon nañu trop ndax ñun dañoo sàggan ndax suñu waag dafa matoon lu nekk ñu màgg sàggan mais tey misara côté mbaam xana kenn desut ñëpp tey njegeen lañ yan loolu yàlla dong moo la ko mën a fay indi nañ gileem li ci des nag kooku redevabilité la ko tubaab tuddee maanaam boo déggee boo seqee ay nit ñoo la defal nangam boo demee da nga ba ñëpp déggu wax da waxuñu ko pour wanewu waxuñu ko pour dara mais enveloppe bi 450 mille moo ci nekk njaboot gi ñoo la ko joxaat ci xol ba sedd guy boole ak li ñu démb ak tey lépp di la ko sagal yàlla na yàlla sagal yàlla na yàlla taxaw liñ ko desi ko doole nag maanaam mooy ñaaxaat ñëpp ndax ñun nag sëñ Fallou kese kese kese dong boole wuñ ci leneen ndax man mii sëñ Fall loo xam billaahi wallaahi wóor na man am na ñoo xam ne moo leen defal defal leen ko dama ko wax kenn ndax lu dama ko fiire ndax moo ne doom du ma kuñ ma tuddee su ma ko mën a jox mboota danaa ko dugal àjjana góor gi ko fekkoon bi koy wax ndindi mi ngi dund mi ngi ma nga ndakaaru fa ko waxoon boo ko fi day gudd te li sax maanaam ñi war a wax fee lañ war a toog di wax kon ñu ngi suñu wax daanaka du saf dara mais daal ñu ngi sant suñu Fallou Mbacke bu baax di ko gën a jëkkal suñu bopp ñu ko fi nekkal ñu xam ne yor nañ góor goo xam ne kenn yoru ko jërë ngeen jëf baal leen ñu wax bismillaahi sant bur yàlla ndaxam dogal ya ak sañ-sañ yarot xanaa damay jooy xakka marsiyaal ne war na bàyyi ba biibulaayi ni mbër ma dem moo fu ma deeti daw jëm ay fu nu deeti dem nun ka doon sunu bu jant sak ba dem na rijaalu xay fi yépp ak seeni sañ-sañ keroog ñëpp a teew di teew ruuga baadu atanaawalu bis bi cheikh habibu xalifatu sëriñ Cheikh ibnu sëriñ Mbàkke Ramata hadihi alkalima allati tatadammanu taxiyaati Cheikh Habibullahi wa tamanniyaatihi ila ali Cheikh Touba Mbaye amma wa ila Cheikh Ibrahima Mbaye xaasa shakiran lakum ala hada almawqifi alaxawiyi nabil alladi barhamtum bihi min jadid ala tamassukikum bil ahd wa saayukum alxamid li ibqaai rawabiti alxaraba xayatan wa naamiya li misli hada falyacmal alcaamiluun wa fi dalika falyatanaafasi almutanaafisuun mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigalul sëriñ Moodu Habib Mbàkke mi xalifab sëriñ Seex moom sëriñ Mbàkke Ramata miñ dara jaale bis bi sëriñ Mourou Habib nee na mi ngi nuyu mbooloo mépp ci turu kilifaam Cheikh Touba Mbàkke mi nekk ci bopp njabootu sëriñ Mbàkke Ramata waaye di waaye di jiital ci nuyoo yi ak ci ziyaar yi alxalifatul am li taifatil muridiya Cheikh Muntaxa di ñaan yàlla na yàlla gën koo sàmm gën koo aar mottaleen ko ay naalam ak yéeneem ci barkeb sëriñ bi di ko ñaanal sëriñ Cheikh mi nekk ci bopp njabootuk sëriñ Mor jaara sëriñ Habibou tamit nee na mi ngi nuyu di ziyaara di sant mbooleem njabootuk sëriñ Touba Mbaye gépp te di ko jaarale ci ki yàlla teg ci bopp njaboot gi muy Cheikh Mahamadou Fadal Mbaye waaye di jagleel am nuyoo akub ziyaar ci turu mbooleem njabootug sëriñ Seex gépp la dalee ci soxna Mbeen ba ci soxna Xadi di la sant di la gërëm di la ndokkee ci bis bi di la ci ñaanal di ñaanal góor yàlla ga boroom xam-xam ba sëriñ sam yàlla na borom bi yokk ko ay tawféex ak i ngërëm ak i leer ak i ngëneel nga xam ne moom lañ dara jaale bis bii kenn la woon ci jaami yàlla yi nga xam ne dëggu na ci ñoom li yàlla wax ne minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qadaya nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila jëmm la woon joo xam ne yàllaa ko baaxe mu ñëw àdduna ñëwin war ndax ñi ko seq ñépp ku tudd mbaax tudd diine tudd leen muy askanu Mbàkke ndax sëriñ Mbàkke ramata mi way juram sëriñ Mbàkke marama ko jur sëriñ Mor Soxna sekk Mbàkke mi nga xam ne boo delloo ci mbindum sëriñ Moussa Ka da nga gis muy wax ne sëñ Mor Soxna jàngal na aslëf alxuraan sëriñ Touba. jàngal sëriñ Mbàkke Buso li tàmbali suratu Taha ba Naasi bi sëriñ bi bàyyi ko Mbàkke Kajoor ñëw fii ci Mbàkke Bawol tamit ci këram la nekkoon ba niñ ko sancalee mu door a tuxu moom la sëriñ bi joxoon sëriñ Ahmadu Yadaali lii sëriñ Ahmadu Yadaali mii ñu denc fii ci Mbàkke moo ko doon jàngal alxuraan ba niñ wàccee sëñ Mor Soxna Sekk Mbàkke moomu mu jur sëñ Mbàkke Ramata mu jur Sayar Soxna Buso di doomi maam Maaram weetoog ndayam tamit noonu la demee ndax soxna Faati Mbàkke mi ko moom sëriñ Cheikh doomi sëriñ Omar Bay laa la doonoon kenn ci góor yàlla ya sëñ Moxtaar Njéemi jur ko sëriñ Mbàkke Xew jur ko sëñ Moxtaar aadama mi bokkoon ak maanaam benn bay juru ko kon sëriñ Cheikh suñu borom teel na koo waajal tànnal ko askan wu sell wu màgg muy askanu Mbàkke te mbokk yu baax nag bu ko yàlla jagleel am nga jumtukaay bu doy sëkk ci baax boo góorgóorloo sëriñ Bay Jaxate wax nañ ne sëriñ Abdou Lahad bi nga xamee dafa nekk tout tànk am na bayit yu am solo yu ko sëriñ Bay Jaxate doon ko doon wax waaye bokkoon na ca fëxal taraw am nga ab yóbbal fax ak rawades ngir baaxi bokk di ab yóbbal nay te ci sar kon sëriñ Cheikh suñu borom waajal na ko tànnal ko fu la fu màgg mu feeñ fa loolu rek nag doyut bokk fu baax jumtukaay la bu nit ki di jëfandikoo pour mën a baax sëriñ Cheikh nag xamoon na loolu ba tax mu góor woon lool ci wet googu noonu ba am ci boppam yàlla defaloon ko tawféex tamit mu amoon baax gu landi ndax nit mën naa baax ci wet gi wet ga ca des mbaax nga xaw fa suuxe xaw faa sooxe waaye nag boole wàll yu bari wet gu ne nga baax ca loolu ñi ko yàlla may bëriwut te moom suñu borom defaloon na ko tawféex jooju noonu ab jullit la woon xàqan doonoon murit doonoon murit saadix doonoon ab taalube bu ab taalube ñoroon lool te ku ko xam mbaa nga miin ko danga seetlu ci moom loolu lool te sëriñ Saalihu Mbàkke danaan wax ne nit de lu mën a barile lu dul ak taalube bu àllaaxira du yàkkamti lu may tàggoog moom waaye doonoon nit ku nite ku mën a jaxasoo ak nit ñi ku daan bàyyi xel li nit ñi doon ndax nit ñi ay jaami yàlla lañ di leen taxawu taxawaay yu ràññiku yu rafet lool waaye doon jëmm ju woyof lool nga xam ne képp ku ko xam mbaa nga miin ko bokk na ci li lay gën a marqué ci moom muy woyof gi woyofoon waaye dëdd àdduna lool jëfe woon lool la xakim ba waxoon ne inna lillahi ibadan futana tallaxu dunya wa xaaful fitana nazaru fiha fa lamma alimu annaha laysat li xayin watana jaaluha lujjatan wattaxadu saalihal amali fiha sufuna xakim ba na ne yàlla de am na ci jaamam yi ñu yeewu te ñor lool biñ dikkee àdduna ba setantal ko ba gis ne fii nekkut fu ñi sax dañ fi jar di jàll dañoo jël àdduna daal di koy jàppee mu mel ni lëggum géej ku bëgg a jéggi am lëgg nag da nga yittewoo gaal gu la jéggil ñu jël jëf yu baax yi daal di koy def mu nekk gaal gi nga xamee ne moom lañuy ñuy jéggalagum géej mi sëriñ Cheikh nag daa déggoon lool lool jëfandikoo ko ba taxoon mu wanoon gannaaw àdduna lool ba ku ko xam mbaa nga miin ko seetlu ci moom loolu ndax xamoon na ne àdduna moom segam kenn du fi des li am solo rek mooy nekkin wi fexe ba nekkin wi rafet te am njariñ moom na fexewoon na ba aw nekkinam ci àdduna rafet ba na fees dell ak njariñ te na Cerno borom Daarul Muxti dara na wax ne àdduna ci ay rëdd dong lay mujj fexeel ba bu la kenn gën a rafet la ay rëdd ndax dundu doomu aadama mënut weesu fii la gane àdduna fii la nekkoon fii lañ ko rob wa inamal maru xadiisun baadahu fa kun xadiisan xasanan liman waa loolu la xakim ba waxoon nit ku mën a doon dañuy dañ lay waxtaani ci sa gannaaw fexeel bu ñu wax sa gannaaw nag wax ci lu rafet loolu sëriñ Cheikh déggoon na ko jëfandikoo ko lool ci ak dundam waaye nekkoon ab defarkat bu ràññee lool ci wet googu ñi ko miin mbaa ñu xam ko xam nañ ne loolu ab taxawaayam ràññeekoon na ci lool te sëriñ mu Moussa daan wax ne fa lu baax nekk ku baax ko fa yóbbu waaye bu fa saxee ab defarkat a fa nekk suñu borom defaloon ko tawféex tamit mu boole juróom-ñett yi nga xamee ne mooy dajee ci nit nit soog a mën a doon ab sang góor ga maxtaar sekk mboora dana wax ne nit balaa doon ab sang dana boole juróom-ñett yii door a doon ab sang jéggal ku lay tooñ dabu ku lay daw jox ku lay xañ teral koo xamut muy loo mën a faj wéetali ko sa ngor di dimbale say bañ sant yàlla ci dogalam man suñu borom defaloon na ko tawfeex mu boole woon juróom-ñett yi nii yëpp nga xam ne jëmm la woon joo xam ne boo koy dégg te xamoo ko wala jaxasoo ak moom lépp luñ lay nettali ci moom ci tab gaag woyof gaag da dugg àdduna gaag bari njëriñ gaag lépp boo ñëwee ba jege ko ba jëfandikoo ba ba moom ba jaxasoog moom la nga daan dégg ci say nopp li ngay gis ci say bët da koy dàq mel la shaayir ba waxoon ne kaanat muhaadasatu rukbaani tuxbiruna an jaafar ibni falahin atyaba alxabari xatalta xëy na fala wallahi ma samiat udni bi axsana mimma qad basari shaayir bi dane gawar yi dañuy di ñu nettali ci jëmm ju daan wax Jaafar nu Falaax waaye nag li ñuy nettali ci moom lépp bañ demee ba gisul suñu bët liñ doon ñu doon nettali ci moom lépp liñ gis ak suñu bët da koo dàq sëriñ Cheikh nag noonu la meloon nga xam daal ci ab tënk mën nañ ne ndan la ko way juram mbàyyeeloon ak i maamam sàmm na ko aar na ko yokk na ko te sëñ Mouhamadul Fadal sëñ Fall daan wax ju am solo daan wax ne donn ak fetal donn fetal ak dànn donn fetal ak dànn teewut a aw yann dala baati wala fa yu am solo te xóot donn fetal ak dànn teewut a aw yann dànn mooy jamkat bu mën a jam lool nga xam ne saa yu diiree mooy donn ak fetalam teewut a reeree ci ndox bu fekkee mënoo jam mooy donn fetal ak dànn teewut a aw yann moom nag loolu dalu ko woon ndoon la nga moom maam yi bàyyi loon ci jàng ak jàngale ak liggéey ak jaamu yàlla ak dunde saw ñaq ci lool la nekkoon ba niñ ko noppee gis kon dañ ñaan yàlla yàlla dolli ko yërmande defal ko njëggal tàbbal ko ci aljana ya gën a kawe def ko muy mbégum ay waajuram ak i maamam sàmm njabootam aarleen ci barkib sëriñ bi su ko defee dañ koy tëjee rek ay kàddu yu gàtt ci jëmm yoo xam ne sëriñ Habib daa waxoon ne nu lim leen muy njabootuk sëriñ Modou Mamoun Diagne te sëriñ Mbacke Ramata nekk ca bopp ba seenu taxawaay rafet na lool ci bis bi ndax ànd nañ ko ak ñun ci tàmbali ba fi mu toll sëriñ Xaliwu Jaañ maa ngi ne teewal leen fi ak sëriñ Moodu Maamun Jaañ njaboot ak sëriñ Cheikh gépp noo ngi leen di sant di leen gërëm waaye di nuyu di ziar sëriñ du Mbàkke Ndaw ku ko xam-xam sëñ Cheikh xam ne am na fu mu ko tegoon lool noo koy nuyu di ko ziare ci turu njaboot gépp waaye tamit di ziare sëriñ Xaadim Mbàkke mu sëriñ Moodu Abib maa nga ne toog ak mbokkam mu baax mais mu fegool noo ngi koy nuyu di ko ziyaare bu baax di ko jox wàccuwaayam di ziyaare sëriñ Mouhamadou Fadal moom suñ Sam Thiadiaye ñu koy nuyu bu baax di ko ziyaare di ziyaare sëriñ Cheikh Mbacke moom suñ Mbacke Ramata sëñ Maam Mbacke al Imam sëñ Abdoul Khadir Mbacke moom suñ Mbacke Ramata ak mboolem ñi fi teew ñëpp sëñ Modou Diagne tamit duñ ko fàtte moom tamit taxawaay bi mu amoon ci diggam ak sëriñ Cheikh ràññeeku na lool Dakar la bàyyi ko ba fii ngir bis bi sëñ Ablaye Mbacke mu sëñ Cheikh Mbacke Daaru Rahman moom it ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaare di ziyaare mboolem ñi fi teew ñëpp di am mbégte bu yaatu di ñaan yàlla yàlla defal ñu taw feex zahiran wa baatinan di ko tëjee waxi sëñ Bay Jaxate jam waxoon sëñ Tubaa yàlla na ko sëriñ bi defal ñu ñëpp sëñ Bay Jaxate sëñ Bay Jaxate ne woon sëñ Tubaa te def nuy murit yoo defar yoo gërëm yu lay dimbalee koy bégal faw it na ngay bég ci nun faaw nuy bég ci yow nu far dund ci topp téeméeri at te son at mu ñëw yàlla na wecc téeméeri at te bu ab jaamu kat jaamu sellal ko it waaye fàtte wuñ sëriñ Saliou Gassama sëriñ Bara Diang sëriñ Modou Cissé ñoo ngi ko ñoo ngi leen nuyu baax di leen ziare ñoom tamit seen taxawaay ràññeeku loolu ci bis bi te rafet képp ko am dañ ko fàtte daal noo koy jéggal bu baax a baax waaye sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi euh, li ci solo itam mooy ndigal la nga ndax lu baax mu baax waaye boo ci amee ndigal nag day gënati Cheikh Abdoulahi Diané mu mag ca mag ñi la sami dana koon sa loxo yi loolu alxuraan bu ma ko ci liggéeyal loolu alxuraan bu ma ko liggéey ci sa loxo yi bu ñu demee gànnaar fu mu xata xata xat waa fexe ba am fa ñetti taalibe lijjanti ba di leen jàngal taal bii nag saxal ci noppam ne ko fii jàng xewu fi fii jàng amu fi liggéey moo fi am di ko wax di ko wax ba mënatu ko mu mu yëglu sëriñ bi mu ñëw suñu ne kooku Abdoulaye mu ne ko waaw mu ne ko lu mu doon mu ne ko man de sama mbokki taal bii ñoom saxal sama nopp yi fii jàng amu fi liggéey fi am ba xamatuma lu may def mais sëriñ bi ni ma Abdoulaye fii jàng amu fi liggéey amu fi ndigal la fi am laggal tëm la ndigal kon ndigal mooy sëriñ bi fii jàng amu fi liggéey amu fi ndigal dafay am bëggal fi ma digal kon nit ki li ma digal rek waaye nag yow ndigal lii nga am muy alxuraan eh, eh, eh, nga boole ko nag ak ak ak ak ak ak ak xasaay di sëriñ bi loolu dafa gën a mat sëñ Bachirou nee na moo ni ma keroog sax ay baat la may tegal tegal ay ñetti wax ni ma Mouhamadul Bachir man mii nee na def nit loxo dafa ne Mouhamadul Bachir man mii lu ma waaj a defal te boole ci alxuraan na ko wóor ne bëgg naa ci lu muy def ma ma ko ca lamiñam ya Mouhamadul Bachir man mii ma waa ji defal te boole ci alxuraan na ko wóor ni bëgg naa ci lu muy def te mbégte si loolu day sàkku danaa bëgg ne nag loolu day na te ne moo ma ko ci lamiñam <laughs> ni ma Mouhamadul Bachir di leen jàng alxuraan ndax alxuraan boo koy jàng yàlla day boole ci ñoom bokk ci ñoom yàlla jaar na jàng alxuraan di leen jàng sama xasaayid yii sax suñu koy jàngat may ne boole ci sama ñoñ may bokk sama ñoñ bokk ci sama ñoñ jaar na jàng sama xasaayid yi li ngeen fonk julli yi juróom ndax ndigalal buur la te def ndigalal buur dana tax jubag buur nee ni Mouhamadul bii ma taal maanaam yoonam bii ni ma taal bii ma taal yàlla bindul ku ko mën a fay moom taal bii ma taal yàlla bindul ku ko mën a fay tekki ni ma man ñii ko taal sax mootuma ko fay man man ñii ko taal sax mootuma ko fay man mooy yoonam bii yal na la fa soxna sax yooyu ñëwee tam ñaan la yow xool nga ma ko ñaan naa ko ci barke soxna jaara bis bi li ci bëgg lépp yàlla fa jëkko sa njot ñaan euh, euh, sedd na euh, maa nga ñaanal ma man benn ñaan benn soxla am ci àdduna moom lay ñaanal dama bëgg doon murit amu benn soxla murit daal laa bëgg doon kon nag wax naa ko sëñ Mountakha bis ma ñëw andi xasida xasida guddi waaye benn béykat laa wax ma ne ko man lott naa loru boole bëgg astafati te aw ma bi shay waaye maa ngeeti xasida xasida waaye boobu it laa ciy wax man lott naa boole bëgg aslafati te aw ma shay an bi shay in waaye maa ngeeti mu ne ma yaa ngeeti ma ne ko mu ne ma loo bëggati ma <laughs> wax ko loo bëgg <laughs> waaw ah kon nag noo ngi barkeelu ci abiyaat yi te gatal ko mënut a gàttal sax ndax benn bëy rek gudd na waaye daal maa lañ ci jublu xam ngeen ko eh, ndax coono yi am na mu moom yow yaa ko am suñu ba Porokhane sori na waaye jaayante naa ba ñëw eh, la ma waxoon nag moom suñu Muntaxa ci boppam ne woon boo koy jàngatee na nga ma ci ñaanal ñaanal ci sa bopp ak sa mbokk tayam ndax mooy ma sëriñ bi bég na ci njàng mi maa ngi bég naa ci te yàgg nga ci te mën ma ko suñu ab doo ko yaram kuy liggéey ci mairie fa nawet yaat te mun faa liggéey kiitub judd boobu bii moomu démissionné noonu la ma ko waxee kuy liggéey ci mairie fa nawet yaat te mun faa liggéey kiitub judd bii moomu ko Eh, kon nag noo ngi ñaan ci ndigalam loolu man de fas naa daal man may fekk fekk fas naa ji tay ku fi jóge ci béy ci may jàng yàlla sukkandiku ci baaxu Cheikhul Xadim mu fi jógee yàlla jéggal na suñu lépp lépp nag ba ñoo toppati dara bëri fa bergen loolu la laa ci fas moom daal suñu borom daal mu xool dara bu mu xool dara keroog sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Abdul Hakim ba woo jërë wàccee sunu si la ñu koy ba di ko dugal ci bërëb bi si Maam Mor Pàkkal daal di tàggoog sagoo ñu ko ci kaw ñu ah, sëñ Tuubaa fii rek laa mu fi eggee bu mu fi eggee fii rek laa la soxla sëñ Abdul Latif Mbàkke ni ko waxoon nañu de ku ku ku toll fii te gisuma tax gisuma ci waaye du ci man mu tax sëñ Abdu sëñ Abdu sëñ bu mu xool dara nan dimbali rek bu mu sol dara nan dimbali rek waaw déedéet ne ko si mun taxat bu mu seet dara nan dimbali rek waaw waaw nan dimbali rek bu mu seet dara nan dimbali mu seet dara nan dimbali kon eh, maa ngi eh, nuyu sama mbokk yëpp tabaarkalla ñëpp ngi fi rek wax nañu leen jàkkati ñu ngi fi eh, ñoom ñëpp tabaarkalla yan yàlla boole taxaw te def na rek nañu dëgg dëgg taalibi Serigne Touba dund ki Serigne Touba dégg ki Serigne Touba dëkk ki Serigne Touba ñaan ñaan ñëpp suñ fallu yatara ñaan yàlla wasuñ suñ dara génn Serigne bi yàlla bu suñ dara génn Serigne ñu ngi ñaan ngeen ñaanal nu eh, yàlla yàlla dogal ci ñun nuy dëgg dëgg taari bi Serigne Touba eh, wax naa ko ba tàyyi la ma suñu sayli waxoon saa su ne ma waxaat ko man de maa ni ko woon Mbàkke damaa ragal bàmmeel damaa ragal bàmmeel muy dana bi yàgg ne ma bàmmeel loo ci ragal ma ni ko ah, Mbàkke xanaa wii tey fa nekk ak nam lëndëmeeg nam xateeg yooy ah, yooyu yooyu rek la ci ragal de muy man ndax yaa ngi fàttaliku bi nga nekk si biir waju wajuru jigéen yaa ngi koy fàttaliku ma ni ko ah, Mbàkke loolu fàttaliku ko mu ne ma xanaa xamoo ne foofu moo gën a xat bàmmeel moo gën tàng bàmmeel moo gën lëndëm bàmmeel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 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما من ظنني غير خديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى أخدمه إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنة من ظن أنه يكون أبدا يرضيه بالذي كخدمتي بدا فغره الضلال والإضلال ينقاد لي منه به الحلال مدحته قبل لدعني برولي مدحا ولا عن مثله كل ولي مدحته مدحا ندى ما ينبى محى عيوبي وكف الذنب مدحته عند أناس قلوى مدحا كفاني العدا والبلوى مني إليه خدمة قد لازمت روضته إلى القيام أزمت رضي عني الله والرسول وأهل بدر وأتاني صول رضي عني الله والرسول وأهل بدر وأتاني سول ربي عني سبته جيلاني عليه رضوان الذي أعلاني ربي عني سبته أبو الحسن عليه رضوان يخلد الحسن رضي عني سبته التجاني عليه إطوان المبيد الجاني رضي عني خلفاء أربعة حسن رضا المقربين المطبعة من لم يكن عني يرضى فالكريم رضي عني جاري الضل ليس يريم جزا الإله مصطفى خير جزاء كما تقبل ووعد أنجزا ñoo ngi nuyu di leen ziyaara jël kàddu gi bu mënoon a ñàkk sax duñ ko def ndax bi ne li ma ñor mooy njàngam xasida mi ñu bëgg a def mooy li ci gën a ñor dinaa bu ñu jàngee alquran ba noppi waxtaani sëñ Tuubaa jàng xasaayid rek a ci war a toog moo tax ma bëgg jàngkati xasida yi gis naa bi ñëpp tey ñëpp ñëw nañ wala ñi ëpp ñëw nañ ma bëgg ñu toog déglu leen ñu jàngal ñu xasida yi borom Tuubaa loolu la yokk rek waaye du ñu wàññi mukk ñoom ñii de am na ñoo xam ne gis naa leen Ndakaaru lañ jóge am ñi ñoo xam ne am ñoo xam ne feneen ak feneen da ci Tuubaa ak Mbakke kon ñoom ñëpp kenn ku ci nekk rek am na lu ma la jaral moo tax nga def lii nga def tey yal na leen yàlla fay mën nañ jóge ba Kawlax kon mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar di tàmbali sunu nuyoo ak sunu ziar ci Cheikh Mouhamadinil Muntaqa awizahullah teewlu leen waaye teewlu leen di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tubéer di ko ñaanal sëriñ Cheikh Mbakke mu sëriñ Ismaïl mi toog toogaayu Mamour Jaara borom Sam di ko ñaanal sëriñ Amdi Mbenda moom maam Cheikh Ibrahima sëriñ Amdi Moodu Mbenda di ko ñaanal sëriñ Sayer Mbay moom maam Cheikh Mbay toog jataayam ñoom ñi nga xam ne bis bi ci seen cosaan lañ jël di ko def muy dikk gu maam Cheikhul Kabir daan dikk bii di seet ci sama maam di ko gane di def ak moom ay fan ba ci ak njabootam ñu ci sëñ Mor ma ca mag ba ci sëñ Ibrahima mi ma tudde ba ci sëñ Cham ba ci sëñ Abdou Salaam ñu toog ci ay doomam ba yi tàmbalee toog ba ci sëñ Sayar mii sëñ Yuusufa sëñ Sayar mi toog nii ñoom ñëpp kenn ku ci nekk boo tànn ñëw fii ànd nga ak jur ñëw loolu la ñuy dundal di ko feddali lu yàgg nag ñaan yàlla ñu jiitu ñëpp yàlla yërëm leen di sant Serigne Fallou Mbaye mi sama xalifa baay te ki njaboot Sëñ Touba Mbaye di ko baax di ko yërëm njabootu Sëñ Touba Mbaye ci nit koo xam ne ay melokaanam ma ne su ko waxtaanee ci rajo yàlla na fi yàgg te wér ñu nuyu Serigne Cheikh Touba Mbacke nga xam ne mooy xalifa Sëñ Mbacke Ramata ñu ko tudd Sëñ Touba Mbay rek dama tudd Sëñ Mbacke Ramata ak seen ñaari way juree ñoo bokk ndey ak bàyyi mm-hmm. di soxna Fatou Seye Mbacke ak soxna Bachir kon ñoom ñoo ñun ñoo bokk lépp ñu ngi nuyu bu baax di leen ziar di bu baax Serigne Souleymane Dieye sunu nijaay ak mboolem njabootu Sëñ Omar ak mboolem njabootu koñ bi rek ak bu nit mën a bokk ci koñ bi ñu ngi leen di bu baax di nuyu ak ziar soppe yi nga xam ne mboolem ñoo àndoon ak man di liggéey di ñetti weer di wër ci dëkk bi ak biti dëkk bi di liggéey ba agsi ci tey nga xam ne yenn saa yi dañu dem sax programme ñëw dun reer ndax ca nañ koy defe la loolu nag wax dëgg yàlla aw ma seen fay mu ci tuddee sëñ Fallou mi ne ci bopp bi ak sëñ Raam sëñ Ndaam sëñ Aali ku lim juum sëñ Pap Sekk sëñ Galas ku juum ñoom ñoo nekk ci seen kanam sëñ Badu ñu jël nuyoo boobu jàllale ko ci mbooleem daayira soppe yi leen ñaanal yàlla yàlla defal leen tawfiq ak taysiir te lépp luñ mébét yàlla jàppale leen ci am naa lim nag da dul yomb ndax léeg-léeg nga lim fàtte ka nga gën a fonk waaye ku ma fàtte it ñu xam ne xol bi moom lim na la waaye cant gi tey dama am ñoo ko jagleeloon muy njabootu Baye Mbaye Jeng ak Serigne Jege Jeng ak Serigne Cheikh Mbacke Ramata mi nga xam ne ñu ngi koy jooytu noppeeguñ rendre hommage ci ñaari nit muy soxna Awa si soxna Aminata Njaay doonoon jigéen bu bëgg alxuraan yal na leen yàlla yërëm li li ma jàngul ci alxuraan xawma lim bi ndax bu desee ñaari weer kuy sama wóllëre ci alxuraan rek dinaa la wax nga jàngal ma nangam ba tax na am na lim yu takku Serigne Aliou Diagne moom a koy gën a jàpp waaye ñu ngi ñaan lim yooyee yàlla jox leen ci seen cër ñoom ñii ma ko jagleel ak li mu tuxfatu yi fi jàng tey mu toll ci junniy tuxfatu ak nangam ak bu ko benn su suñ maam Mor Ndoye jiite ko ànd ko bu waa Ndoye ñëw jàng ko fi yàlla leen ci yàlla sédd seen wàll njabootu Baye Njaga nag ak Serigne Mbaye Jeng bis bi dama leen ko tudde rek ñu gën ma ko bëgg ndax man mooy wax ne sama bis toujours damay tànn ñi ma koy jox seetuma ci alal seetuma ci alal yàlla xam waaye mosuma koo def nit ñi neen doog ku ma ko def rek ñépp dañ koy rafetlu li ko waral mooy dama koy tànn door koo def njabootam keroog bi ma xëyee xalaat ko mu nekk sama xel bi ma génnee ki ma ci njëkk yam ci moom bi ma ko ko waxee fekk dama génn taal sama oto bëgg a dem ci sëñ Moodu ñam mu baax mais sama xarit bee par génn rek yem ci moom fii ci bett bi ma wax ko ko mu ne ma jox naa la ci gëléem ci wax gi ma wax waa yow teel nga neexal màggal gi de ak gëléem mu ne ma waaye jox naa la gëléem ma demee ne maanaam kii daal boo demee day jaaxaan rek kii ne moom mu daal di ci guddi ga bis booba dajeek ma wax ma dem ci sëñ Modou Niang mais waxtaan ceeg moom sëñ Modou ne ma mbégte mu ëpp mu ëpp loolu de mosuñ koo am maa ne dama bëggoon bu ma jógee ci sëñ Cheikh Touba Mbacke ñu tamit ñëw ci yéen booba maa jàppoon na sëñ Cheikh Touba mi ñu ne ma xëy na dem ñëw jaar jaar këram ñu ne ma dem ñibbi na dellu na Ndakaaru ma jàll ci ñoom keroog ba ma fay jóge dañ ñëw di ñag mais génne téeméeri junni wan ma ne ma Moodu jox na ma ko moor la ci wutal ak gëléem yàlla dogal keroog bañ koy jëndi gëléem gi moom Modou Niang mais damaa woo ni ma ñëwal seet gëléem gi nga bëgg ah loolu danga ko mën a ñëwal rek bu ñu demee yàlla dogal ñu am te gëléemu téeméeri ak ñeent fukk li ma jublu ci leeral gi damay wax seen yéene rek ñu jënd ko dal di koy indi ñu def lu ci war lépp continué nag bis bi yëg ko yëg goo xam ne gis nga addi ji indiwaat ci baas bi te yooyu yëpp lu baax la waaye man teguma ko kon nag nit bu la defalee lu baax nga woote ñëpp ñëw da ngay wax ni demal na ma lu baax loolu mooy sababu wax gi wa amma bi ni'mati rabbika ahadis loolu mooy sababu may ma leen di sant leen gërëm ci jëf jiñ jëf yéen ñaanal yàlla mboolem ku ci satoo yàlla teg la loxo ci jëf ji yàlla defal cant ñoom liñ ciy jaar rek ndax li nekk suñu xol mënuñ koo wax am na luñ leen ci waxoon démb bàyyi Serigne Gueye mais moo leen ko waxoon it bi ñu indi teraanga ji waaye cant yi moom du doy waaye cant moom cant rek la mën a doon hmm. mu ngi jógee ci ñoom ñëw ci Serigne seex Mbacke Ramata doonoon nit koo xam ne nit ku baax la moom nit ku bëggoon doomu aadama koo xam ne mësul def àddina muy dara dafa masaan fekk bii mu toog mosoo koo fekk mu toog ci ab sees ci suuf rek lay toog ndax ñàkk fonk ko àddina doo gis mukk sëñ seex mu nuru la sax doomi sëriñ foo ko fekk rek day woyofal boppam mu dëdd bi nag na gën daaw daanaka wala li mu topp bariwut wala ma togul ñaari at te dem demin guñ bette bis bi daaw laa ko ko naroon a tuddee war ma dégg ñu ne am na ku ko ko tuddee ma bàyyiwaat ko kon nag ñu koy ñaanal yàlla dolli ko yërmande fam ne lii wàllam ci liñ def ci alquran ak salaatu ala nabi yàlla jotali ko ci wàllam ci daraje yi nentu bi sallallahu alayhi wa ñu ngi koy sant njabootam démb ci guddi lañu ma woo jox ma taraanga yoo xam ne ñoom seen taraanga yooyu mën naa defar bis bi yàlla xam na ko kon bis bi ñu ma ko jagleel ren ñoomu ko gën a bëgg muy njabootu mam mbay ak njabootu sëriñ Jaga ak njabootu sëriñ Seex ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen liñ bëgg defal leen lépp lu baax ci barki borom ku baax sunu xol sedd na ci ñoom bis mu ne am naa ko mu rafet waaye bii bis ma duma ko am ci lépp nag kon loolu ak cant la ñu ngi ñaanal ñépp ñu ñaanal seen njaboot yàlla def ci barke kon sëñ Cheikh Touba ñu ngi jël lépp rek teg ko sa loxo nga jàllale na ko ci njaboot gi di dellu yi sant ak gërëm soxna njabootu soxna awasi ci suba lañ fi ñëw ñëw indi fi ay taraanga yu bari taraanga yoo xam ne yaatu la ma defe ne ca la ñuy yem ñi ñëwati ci guddi gi dooleeti taraanga ya kon maa ngi jël nuyo bi ak ziar bi di ko teg ci loxo bàyyi sunkale bi nga xam ne mooy seen way jur seen kilifa mu jàllaleel ma ko ci seen njaboot yépp ñii Dakar lañu jóge ñi Mbuur ñi yeneen dëkk ci suba ñi ñëw fi def délégation kon yaa wasi dafa doonoon ku bëggoon njàng mi daan ko béggee moo tax rek ma rendre hommage ko ci doon ko fàttaliku di ko ci ñaanal kon njabootam mi ngi leen di sant di leen gërëm kàddu yi <clears throat> moo bari te nit ñi eh, am ci ñoo xam ne xëy na seen seen wér Eh, mayu leen ñu mën a toog yenn jataay waaye ñun ñëpp la ñu amoon yéen ñu jël kàddu moo tax ñu tënk ko rek ci ñaari kàddu di ñaanal soxna Aminata Njaay yal na ko yàlla yaram doonoon jigéen bu bëgg alquran di ko di ko di ko ñaanal yàlla danaan toog ba si yàgg rek mu ne ma ñëwal ma ñëw mu ne ma jàngal ma kaamilu alquran ma jàngal ko ko mu doonoon lu mu bëgg yal na ko alquran wallu yal na ko teral ci barke sëriñ Tuubaa sunu yaay ju baax la woon mu ngi jël nuyoom ak ziyaaram teg ko ci loxo sëñ Balla mi nga xam ne mooy doomam mu jàllale na ko ci njaboot gi ay nit ñu baax lañ nit ñoo xam ne nit ñu neex a jaxasool ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant ñi bi doon jàng alquranul karim ñi soli ak ñi jege di siyaar bu baax ak ak gërëm <coughs> ministre Garoba indi na bi ay ay yu yaatu te xéewal yooyu du ren rek la ko def ak mu jot da kay def ñu ngi koy sant jënd na nag démb indil ma daawit defoon na ko kon moom ah, biis bi bu kuy bëgg mu jag bokk na ca te def gi bu koy def ji sëñ ji njaay mu baax mee rek laay woo bind leetar jox ko duma fa sax dem sëñ ji li mee moo koy dox wax ko ba indi ko ne ma mi ngi nii kon sëñ moraan ñu ngi jël nuyoo bi sant gi jox la ko nga tegal nu ko ci loxoom di ko xamal ne bég nañ ci moom ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla taxawu ko ci liñ ko dénk yàlla may ko kàttan yàlla defal ko wér ba liñ ko tax ñu del ko ko lépp yàlla may ko sago mu man ko def ni mu ko bëggee sunu xol sedd na ci moom ak mbooleem ñi màndal ñëw nañ fi démb ci guddi ñëw nañ fi tey ci timis ba tey ñu ngi fi kon kenn amul seen fay jërë ngeen jëf suñ ji li sama xol sedd na lu ngeen man ci santal ma ko rek nga ci jot sant naa ko gërëm ko di sant bu baax ancien maire bi toog di honorable député Serigne Abdou Mbacke Ndaw moom it li ma wax galo rek laa koy wax moom dafa yàgg di jëf ci bis bi ba tey jii gis nga ko bi mu ñëwee indi na bi ay xewal yu bari jox ko ne ma defal ma ko ci bis bi dara nga nag ku la ko defal la nga koy wax say bokk teewee nga seede ko nit ku baax la mësuma dem këram sàkku ci moom dara te loola fekk na defaluma ko ba muy nekk maire ak bi mu jógee ci maire bi lépp la ci yemale nit ku baax la ñu koy sant di ko gërëm di sant bu baax sëñ Mbàkke Fay moom it di ku baax ñu dénk ko hôpital bu bees bi muy sunu wëllëre bis bi teew na fi ànd ak délégation bu am solo ñu ngi koy sant di ko gërëm indi na fi ay xéewal mu koy ñaanal yàlla yàlla sàmm ko te def ko mag lu mu yéene rek yàlla defal ko ko noonu la ñuy sante sëñ Abdul Ahad loo addiyam sëñ Ndaam Ñas mii la ko jox moom ko indil mu koy sant di ko gërëm mu limi daal damay juum di sant sëriñ alxaaji Mbàkke moom jaajaay di ko ñaanal yàlla sunu mag la waaye yàlla daa dogal lépp lu muy def rek ci lu jëm ci xasida ñun lay woo ñu taxawul ko ko muy konu taxawu ci wet googu ñu koy sant bu jóge ba ci ajaay ñëw ànd ak ay coona ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mbàkke na yàlla dolli kàttan gi ak wér gi li mu yéene lépp mu def ko su may lim du matal sama xel eh, dafa sonn fitne waaye nag li muy sonn sonn ak yaram bi fii ma toog duma fi jóg ba asamaan cat ndax xasida yi ñor na ma lool si mun paxaa jërëjëf géey sant naa bu baax a baax sëñ Ablaye Seck lii ñooy sunu magi xasida ak sëñ Mor Massamba Diop ak sëñ Maam Góor Diouf mii nga xam ne day sama mag waaye di sama xarit lool am cofeel ci man lool Kawlax la jóge saa su nekk lu baax rek la may wax di ma ko digal ñu ngi bég bu baax ci sa jataay bii nga ñu am ak ñun di la sant di la gërëm Diouf di la ñaanal yàlla yàlla taxaw la suñu bilaat kundul noonu moom it sama rakk la waaye sama xarit la ñu koy sant di ko gërëm di sant sëñ Mahmoud Fadal Jatara mi doon def waxtaan wi mook sëriñ Chouaïb Diouf ñoom samay xarit lañ bis bi naka jekk ñoo koy waxtaan ak sëñ Mor Ngiraab ñoom yàlla dama boole ñoom ci dëkk bi te li ñuy def xaw ma ku leen ko dàq moo tax daanaka man ci ñoom rek laay yem lu ma am it wala ku ma am bu ma sañoon buy def lu mel noonu du leen fi weesu ndax li ñuy def mën nañ ko kenn ku ne xam ne ne liñ fi génn tey jii xam-xam bu sell xam-xam bu wér la kon nag na leen dëkk bi bàyyi xel xam ne ñoo fi nekk nekk ndaw yi sëñ tubaa di waxtaani sëñ tubaa di leen fi wacc nag di seeti leneen yaakaar naa loolu moom mën naa ñàkk ñu ngi leen di sant sëñ Fallou di leen gërëm di sant sëñ Cheikh Diouf mu baax mi moom sëriñ Saliou toonit moom dina ñëw sama xarit la tamaa ko may soxna itam mënut a ñàkk ñëw di sant it sama xarit boo xam ne mënuma koo ñàkk sant foog naa ak cantam na ko ñëpp déglu muy Serigne Bassirou Niang di kenn ci man bis bi dama ko tàmbalee ñu tàmbali koo waxtaane ba fii may wax ak yow lu nekk ñoo ko ànd dem fii ba ndakaaru ñoo fa ànd dem ànd ñi bis ba fi nit ñi may wax ak yow bis bi lépp lépp ñoo ko ànd bërki démb dane ma lépp lu ñu def ci bis bi te diw di ko def diw diw maa koy jënd indil la ko dem jënd ay bari koy diw yu bari indil ma ba ñeenti bari koy diw li ma indil ne bu doyut ma dolli ma ne ko ñeent ngay doy na ñeent moom ku ko def cëg lekk mu war a doy sëñ Basiiru jërëjëf sama xol sedd na maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla taxawu la te sàmm la te defal la li nga bëgg ci sa àdduna lépp ci barke Mamoor Jaara sëñ Aliou Badara Jëngit maa ngi koy nuyu ak ñi mu àndal ndax sama sama xarit la sama doomi ndey moom moom këram bu ma nekkee ci dëkk bi ba sonn dëgg-dëgg këram laay dem Ndakaaru noppalu ji fa ma nga nee toog ci suba la ñëw jóge Dakar ànd ak ay xaritam su ñaar lii li nga dem yëg naa ko li nga def neex na ma li nga def neex na saay bokk yàlla na la yàlla taxawu te sàmm la defal la li nga bëgg ci saa dina lépp sama xol sedd na ci yow lool sëñ Aliou Badara Dieng yaa ñi nga àndal ñi nga àndal bu ma limee damay juum waaye yóbbaale nga ñi nekk Ndakaaru jóge Ndakaaru ak ñi jóge Touba ñëpp jërëjëf Dieng eh, sëñ Abdoul Ahad ña ngit maa ngi koy nuyu sama xarita doomam bu jigéen bi mu njëkk a gis man la ko bàyyele te looloon nit ku la ko defal deseelu la dara mhm. mu ngi nii toog ci sama pegg ndakaaru la jóge maa ngi bég bu baax ci li nga def sama xol sedd na sëñ Mor Massamba jërëjëf yow bis bi miin na la lool waaw ah, ndax sa baax sama diggante ak yow it ko xam ñëpp xam nañ ne sori na sëñ bàcc jërëjëf moom day waajal bis moom it alxamis bii ñu jëm ñu ngi koy yëgal ñëpp suñu bàcc jóg sama xarit sama doomi ndey moom it mi ngi ci jataay bi bu ma limee daal nag damay juum waaye sant naa ñëpp gërëm ñëpp di sant bëgg Bàmba mee taxawaayam di sant bu baax eh, daayiratu muridina fi xidmati Cheikh Xadim seen taxawaay ñu ne ci koñ bi lépp lu jëm ci wàllu organisation ci seen loxo lañ ko tegoon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla defal leen liñ bëgg sunuy rakk lañu waaye taxaw nañ ci bis bi loolu taxawaay bu rafet rafet jël nuyoo bi teg ko ci loxob sëñ mbay mu jàllale nu ko mboolem waa daayira bi kon kon sedd na sëriñ Gueye sama xarit sama doomi ndey ci moom laay tëjee bis bi bañ ko tàmbalee ba tey da ko ànd ak man moom première ba ba nëgë noppaluwut démb ci suba barki démb ci suba la fi xëy si woon maa koy sant di ko gërëm ci taxawaayam ci man rafet na mu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk xam-xam bi amoon naa yéeni sax mu jël kàddu ci cérémonie bi waaye waxtu yi moo ñu xoj ba njàng mi bëgg naa mu tàmbali waaye sëriñ moom sama diggante moom xam na man xam naa ñoon nañu ko yàlla teel ànd bi di ziar nga xam ne ñoo yor sit yi ñoom ñépp ñëw fi ñuy sëñ Moussa sëñ Mbay ak Biram ak Xaadim Njaay ñoom ñëpp ci avant première bi ba tey ñu ngi ànd ak man lu may def rek jël nañ ko hmm. maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant sëñ Xaadim Diouf sama rakk moom it lu ma nee rek ma nga ca saa su nekk mi ci sama pegg di sant bu baax a baax ñi may àndal ci xasaayid yi te bu ma ci tuddee sëriñ ab tijjeey ak sëriñ làmp ak sëriñ fàllu mbay ak sëriñ jiili mbay la ni ñu mën a yóbbaale nag ñi ci des ñépp suñu aas suñ saaliw sekk ku lim joom ñoom ñépp rek fu ma jëm ci liggéey bi rek ñoo ko ànd lu sori sori it duñ ne sonn nañ duñ ne tàyyi nañ mooy ñi may àndal ci xasida yi maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla taxaw ñu bëgg ci xasida yi yàlla na leen ko yàlla defal te defal leen ko niñ ko bëggee gis nga leen saas su nekk ñu ngi wër ne ci baas bi taxaw lépp ñu leen di sant di leen gërëm am naa ku lim waaye dama bëggoon ñu jël neexal yi sëriñ mbay jëng ak sëriñ njaga jëng ñu ñëw taxaw nii ñuy nangu seen neexal ñu jox leen ko tam gaaw ñu continue njàng mi sëñ ndaam kon sunu kàddu foofu lay yam waaye ñu dimbali ma rek ba ñoo jóg ñuy taxaw ñu jox neexal yi rek sëñ sëñum daa toogal suñ borom defal ko ay leer ak bëti ko Serigne Cheikh Abdou Mbacke an kulli suu'in abadan